sëriñ leen jëf mbokki sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb tey di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV jeudi le 17 juin ci atum 2021 ñu xëy ci journalu sunu lamb bu fekkee di fay affiche am solo gala à Niakhar 18 au 19 juin ci atum 2021 1 million 500 mille francs sur la la ñu nga xam ne nii moom moo di ca Niakhar mercredi de CNC à moo fa imposé nga xam ne nii moom moo di takk neer waaye violence nga xam ne débordement yi ñoom acteurs yi lamb yi day ña ngay ñi nga xam ñoom ñoo di force de l'ordre ngir ñu mën caa dugal li nga xam ne a sauver avenir di lambo Tyson le démolisseur face à boxeur ki nga xam ne nii moom Frank Tyson 2 choc des championnats Afrique le journal bi xëy bind ce samedi bi nga xam ne ca la la boobu le combat bu nar a neex metti lool waaye ki nga xam ne nii moom Jax production na la ñëw samedi le 19 juin ci atum 2021 stade Iba Mar diggante guy gee ki nga xam ne nii moom Pati Diouf la boobu le combat bu ñu demee fi nga xam ne nii moom moo di cëxatum sunu lambu day fekk fa ki nga xam ne ni mel balla mbay guy gi kiite école de lutte ñaa waaye ki xam ne nii moom moo di si tax mu tax mu si saala tax mu kiite yëpp andi na cay leeral ba nar seere benn émission boobee nga xam ne nii moom moo di Sen TV moom raay ba ki xam ne nii moom moo Max Mbargane open press ki nga nga xam ne nii ca nekk Serigne Ndiaye de demoon na foofee nga xam ne nii moom moo ca Gambie ngir taxawu ki xam ne nii moom moo di France ci combat bi Euh, moom moo di Serigne waaye ki xam ne nii moom moo di bu xam le moom moo di bëre xam ne nii moom moo di Papa Sow jëlul dem fenn diggante Gàmbi ak Dakar ko bëgg a def dinaa ko ko defal yéen ko seetaan lamb actualité lamb te di ko suivre ci bu mag bi xam ne moo Bawal TV du kenn bu ma topp waaye ko jooy dëpp la ko dale Thiès xombal Bambey altundangal mag sew kabak la ñaar kër daama kër saer juróom ñëpp actualité lamb ak Baol TV ñu yëndoo ak